Deuxième journée de la saison. ñëwal rek ñëwal. ñëwal. ana nga yow daal. toog a dundee toog a dundee. man ñëpp laay épaulé bu ñëw ba épaulé la ba nga am doole. man loolu laa fi nekk rek. loolu moom dëgg la moom. yow day gisee rek. loolu la man ñëpp laay épaulé. deuxième journée de la saison. Diop moo aca Khalil cinquième combat baa ngi noonu si diggante Biringal ak kii di Momar 2 tur bu nekk ngay dégg ay biringal. biringal biringal biringal yéen ko noonu ñoo ngi lewtoo waa Kër Masar yëpp topp si ginnaawam ñoo ngi lewtoo biringal ak Momar Da ñoo ñoo ngay lewtoo ku nekk ngi xalaat loo wala def morom da war a àgg suuf Biringa la ngi door waaye dalul des fois li ma mën moo sol mun xonq li moo jàkkaarloo ak ñun ñoo ngi ba léegi. aca na gaaw waay waaw na gaaw ba amu fi combat bi yéex ba amu fi na gaaw ab bi sifle waat na si diggante Brigal ak Momar 2 Brigal waay dem moo ngi waay dem te demul Momar 2 ngi am na lu muy Briguer doon dina tànk ba moo ngi ko ah fayu nañ suq na sama ah te na ah, waaye su pateer a jóg nañ cay lii cay lii ñaay ndaam yu ah, ngi door Briguer fayu na ñaay ndaam lañ topp na ko ah moo ngi arrière boo génnee saa ngi am avertissement boo sonnee génnal boo sonnee est-ce que jeex na est-ce na est-ce que jeex na est-ce que jeex na waaw li la est-ce que jeex na ab banque laaj est-ce miiroo ab banque laaj est-ce que miiroo ab bi nekk ñaata baram laa la wan ah kii la eh, Brickell wàññi sa dóor mu daanu yi. Brickell de brick la yan brick. ah brick la yan. Brickell brick la ko yan. waxoon naan boo mënatul arrièreal lamb boo mënul da ngay arrière. dëggal ab bi dañ diisoo. waa combat bi daa jeex jeexul. bu koy dóor fekk na mu génn. Ardo ngay laaj ñaar baam laa la woon. mu ni ko ñaar mu ko kon gis nga. <laughs> mu ni ko kon yaa ngi si. du ko Ardo nga dem ku ci baa ngay may ndox. naan te dellu si. ñaari ndaama ñaari ndaama la. ab bi ngay woote dañuy bëre waat wala. ci loonee. bëre waat wala. ci moo yore ay briques. waaw waaw briques yi diis na de. Birigal ay briques la yore. Euh, loo jàppoon mel nii bu ko bàyyi ji nga la. Euh, Birigal indiwaat birig la indiwaat ak birig ay birig la indiwaat. loo jàpp bu mel nii bu ko bàyyi jig na la. wala xaw ma daal am xeeru ab bi jox na ko avertissement. birig la tamit jox nañ ko lay wax cours parce que daa génnoon mu dóor ko acca ab bi na ngi ab bi sifflé na Biringal lu ko bàyyi du bàyyi dóore Biringal lay si dóore lay naa leen ko day kon na dóore ñam naa ko mu neex du ma ko bàyyi. wallaay ñam naa ko neex na bàyyi bàyyi naa awul fenn. xoolal ma lii Biringal suuf. Momadou nga avance si waaye Momadou arrière wul nag eh Momadou Momadou defaat nga fi erreur bi door ko Momadou ngi fayu miir waaw daan na na kat appui waay waay dina xool ma lii eh! doo daa doon ma daanu waay biringal mi mooy kan waaw waaw Momadou bay si lamb ji bu yàgg ma ambiance xale yi ma ambiance bi wallaay su ma tey si meeku nañ wallaay ñoom naka mu neex bàyyi naka amul fen loolu loolu la supporter di way ma lii xoolal ma lii xale yi simeeku nañ xale ma lii lii mooy lamb ñoo